comme vous le voyez, Ndao à Ousmane Sonko leur sympathie, leur contentement cette fois-ci, parce que tout simplement Ousmane Sonko vient d'être placé sous contrôle judiciaire waaye du yam foofu parce que li ñu bëgg mooy mu am non-lieu ak acquittement total ñoo ko gisandoo. les jeunes sont en train de montrer que ñoom ñii kat du ñu nangu yenn jaay doole yi ñu bàyyi leen ngeen dindi ambiance bi. que vous voyez là lii ngeen di gis ni c'est une parti de la victoire du peuple sénégalais lii ngeen di gis nii une parti de la victoire du peuple sénégalais la parce que président Ousmane Sonko dañ ko placé sous contrôle judiciaire te acquittement total ak non-lieu la ñu bëgg parce que lii complot rek moo ko lal gis ngeen taw ñi ñoo ngi nii buntu kër Ousmane Sonko di ko fi xaar di ko xamal ne ñoom kontaan nañ ça c'est la victoire du peuple sénégalais ça c'est la victoire du peuple sénégalais lii mooy victoire jeunesse bi ça c'est la victoire de cette jeunesse là qui incarne la démocratie et l'espoir gisaloo ndeen ko ñoo ngi xamal ne ñoom ñii Sonko rek la ñu gëm te duñu nangu tey jii li ñu jaay leen doole ñu bàyyi leen ngeen dund ambiance bi gisandoo les jeunes sont en train de chanter l'hymne national du Sénégal ñoo ngi way hymne national du Sénégal yor drapeau bi pur wane ne Sénégal moo gagné te ñoom ñi ñoom ñooy Sénégal kenn du Sénégal nga yor nguur ak koo manti doon bu bëggee jaay doole peuple bi di nga xamante ne yow doo Sénégal di nga xam ne yow yoroo nguur di nga xam ne yow mi yoroo force parce que yor nguur qui yor force mooy le peuple sénégalais et aujourd'hui ce peuple là est en de manifester son son contentement saa gaieté parce que ñi ngi wanee ne ñoom ñii kat ñu nangu ñu jaay doole ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ñoo ngi nii taxaw tey jii nii di xaar seen leader Ousmane Sànk waa gis ngeen xale yi seen yaram tàng na nag kenn mënutu leen a xanaa rek ñu xam ne ndaw ñi ñoo ni mel deret ndaw dafa tàng ñoom ñoo commencé nii tey jii nii di manifesté wu ñu bàyyi leen encore une fois de plus ngeen dund ambiance bi dund leen ambiance bi

mënu koo téye kër Ousmane Sonko mi ngi commencé fees dell ñëpp a ngi daw si di ñëw fii cette jeunesse la pour témoigner à Ousmane Sonko xamal ko de kontaan nañu ñu bàyyi leen ambiance bi. ay Ousmane Sonko la ñu seen naan leen première dame ñoo ko gisandoo ay soxna yu Ousmane Sonko la ñu seen ak njabootam naan leen première dame lii daal ku ko mu doyul gisuma lu lay doy te ñun ñoo gisandoo lii ni mel ñoo ko gisandoo ay soxna yu Ousmane Sonko la ñu naan première dame vraiment ñoo ko gisandoo ñun ñëpp. voici ce qui se passe en ce moment ñu bàyyi leen ngeen dund ak ñun li nga xamante ne moo di moo di ambiance bi am fii xamal leen ne rek euh, comme vous le voyez ñoo ngi fii ci cité kër góor gi buntu kër kii di président Ousmane Sonko les jeunes sont venus témoigner les jeunes sont venus témoigner a Ousmane Sonko dañoo ñëw ngir wan Ousmane Sonko na ko yow la ñu àndal wan Ousmane Sonko ne yow la àndal ak drapeau bii ngeen di gis di ko xamal ne Sénégal moo ñu ñor te yaakaar nañ ne yow yaay yaakaaru Sénégal tey boo leen xoolee ndaw ñaa ngi noonu ay waay ndaw ñi seen yaram tàng na ay waay ndaw ñaa ngoog ndaw ñaa ngi noonu moom daal seen seeni seeni seen way la yor seeni way lañ yor waaye ndaw ñi ku leen bëgg a téye di nga am problème parce que ndaw ñi daa am lu ñu jëm te ndaw ñi daa am lu ñu xeex xamante ne moo am fii ci cité kër góor gi buntu kër président Ousmane Sonko fii ni ngeen ko gisee nii li fi am nii à Ousmane Sonko encore une fois de plus lii nga xamante ne ñu koy def liggéey parce que ñoom bépp ñun tey libération ki nga xam moo di président Sonko waaye ñoom tamit ndaw ñi di ñàkk xam nañ ni ce n'est qu'une partie de la guerre gagnée parce que y a d'autres mouvement ñoo ko déggandoo ñi nga xamante ne tey ñi ngi fi itam ñu ngi demander la libération des autres otages notamment Abbas Fall Guy Marius Sagna Mor Niang ki nga xamante ne moo di Birame Souleye Diop ñii daal ñi ngi laajte en ce la libération des otages xale yi dañoo sonn dañoo daw lu bari moo tax ñi ngi laaj ndox ñu ngi leen jox ndox ngir ñu naan seral seen baat préparer accueillir ki nga xamante ne moo di seen leader politique di le président Ousmane Sonko lii moo am fii ci cité Keur Gorgui xam ngeen ne ñii <laughs> waay waay ku leen wax terroriste xamoo lu xew ku leen wax terroriste sax duñu la faale parce que ñii li ñu gëm mooy Sénégal te yaakaar gi ñu am ci Sénégal jàpp nañ ne Ousmane Sonko moo leen ko mën a fajal parce que Ousmane Sonko ci boppam moom ci boppam yaakaar la te ñoom ndaw ñii ay yaakaar lañu ñaari yaakaar yooyu bu ñu dajee am nañ yaakaar ne Sénégal dana jëm ca kanam bu ko defee ñu bàyyi ko xel ñu bàyyi leen ngeen dundat encore une fois de plus ambiance bi ak ndaw ñi. dafa mel ni nag Ousmane Sonko ngi noonu di egsi daa mel ni. xamuma moom la am déet parce que mbooloo mee ko tiim te oto baa ngi avancé ndànk-ndànk nii ngeen di seen noonu am na oto buy ñëw nii muy mel ni kii di président Ousmane Sonko la moom la am du moom ñun xamuñu waaye bu dee moom di ngeen am exclusivité bi daal di koy gis mu wàcc ci otoom saafonte ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy sénégalais yi lii daal bëgg nañ koo def defal ko kii nga xamante ne moo di Ousmane Sonko lii daal foofu nit ñi xam ko lii daal mooy li am fii nga xamante ne moo di cité kër góor gi ñi ngi xaar. kii nga xam ne président Ousmane Sonko maa ngi gis benn waaye nee na nee du moom du moom du moom ñoo ngi naan du moom. foogoon des Ousmane Sonko la waaye nee nañu du moom kon xale yi dañuy xaaraat parce que yàkkamti nañ lool kii di Ousmane Sonko egsi fi oto baa ngi noonu du Ousmane Sonko lañ ñu wax oto baa ngi avance tànk ndànk léegi nag ñu xaar xool kañ la Ousmane Sonko di ñëw waaye daal li wér mooy gis ngeen fii li fi am li wér mooy gis ngeen ndaw ñi ñu taxawee fii pour accueillir ki nga xamante ne moo di président Ousmane Sonko ndaw ñaa ngi xajal yoon ngir ñu mën a jàll ndaw ñaa ngi xajal yoon ngir ñu mën a jàll ñoom ndaw ñi ah bu ko defee ñu def ndànk rek sécurité mën a am oto bi mën a dem ñu mën a gaañ benn xale ndax ndaw ñi tey jii nii seen mbégte dara waru koo mën a yàq fii nga xamante ne moom la ñëw manifeste ko fii ci cité Keur Gorgui xanaa ñu préciser rek que combat bi day soog tàmbali ba tey nag ndaxte Ousmane Sonko sous contrôle judiciaire lañ ko teg maanaam ba tey dindeeguñ mbir mi parce que ñoom pareeguñ seen i mbir balaa ñoo kontaan laal ko. balaa ñoo kontaan tëj ko waaye balaa ñu koo tëj dinañ jaar ci bii ndax ndaw ñii du ñu nangu ndaw ñii du ñu nangu ndaw ñii du ñu nangu luy injustice ñu bàyyi leen ngeen dundaat ak ñoom ambiance ndaw ki sant mooy père Jibi ki ñuy sant mooy ki nga xamante ne moom mooy le chef de protocole ñu naan ko Jibi Gueye Ndiaye te naan ko père Jibi moom la xale yi di sant di gërëm naan ko père Jibi jërëjëf jërëjëf pour sa loyauté jërëjëf pour mérite bi nga xamante ne am na ko circonstances yi li muy jafe-jafe li muy métti métti il est à côté du président Ousmane Sonko am saa confiance am sa loyauté kon ndaw ñi xam nañu ko moo tax ñu ngi naan père Jibi jërëjëf parce que mooy le peuple devrait être libéré ndaw ñi daal lii mooy li nga xamante ne def nañ ko fi defee rek ñu bàyyi leen encore une ngeen gis li nga xamante ne moo fi am à ce daal fii ci cité Keur Gorgui drapeau baa ngay tëb ndaw ñaa ngi wane seen bopp ñoo ko gisandoo angle bii ba fële fa ca angle bële dafa fees jël ak ay nit ñu ne moo di Bara Diouf Bara Diouf ku ko xam xamee ko MRDS Bara Diouf ku ko xam xam ne également il soutient Ousmane Sonko tey jii nii moom itam ñëw na bokk ci li nga xamante ne mooy am tey muy la libération de Ousmane Sonko xanaa rek ñu laaj Bara tey jii nii taxawaayam ak mbir mi nan la ko gisee Bara noo gisee évolution mais jërëjëf Sadikh li ñu gis tey jii euh, nekkul lu dul euh, benn benn benn étape bu importante si combat bu ñuy combattre. Parce qu'il faut que nous au au-delà de Ousmane Sonko, nous sommes dans un combat global, un combat pour la souveraineté du peuple sénégalais. Et que dit, ces personnes qui ont voulu ambasser le président Ousmane Sonko doivent comprendre que Ousmane Sonko aujourd'hui a la l'onction du peuple. dit, Ousmane Sonko, peuple lui m'a dit, Ousmane Sonko, moo lui m'a ko parce que comprendre nañ ne ñoom seen i aspiration yu ñu gën a bëgg Ousmane Sonko mooy ki nga xamante ne moo gën a nekk à même ba nga xam ne mooy porté ko tey ji li ñu gis nii ñu gis ko depuis ay fan peuple sénégalais yi jogal boppam wax ne dañuy bañ injustice wax ne président de la république amul droit ne moom moom moo fiy nekk mooy décider kan lay xeexal ak kan ma dul xeexal bari ne sénégalais yi dañoo jàpp seen démocratie ñoo ko mën a défendral seen bopp lu am solo la mobilisation bu ñu mobiliser nag tey ji dañ koo war a gën a continuer suñu mobiliser ba ñu libérer tous les ñoo xam ne ils sont en prison de manière anormale de manière injuste et loolu dañoo war a continuer xeex ko loolu mooy xeexu Sénégal yëpp parti bu ñu mënti bokk mouvement bu ñu mënti bokk daa xam toll nañ foo xam ne ñun Sénégal dañoo war a jël suñu responsabilité delluwaat suñu réew ñu jël ko moom ko parce que suñu réew ñun ñoo ko moom keneen moomu ko réew mi santul Sall santul Diouf santul Sonko réew mi Sénégal yëpp ko bokk mais tey jii li nga xamante ne gis nañ ko tey jii taxawaay bi nga xam ne peuple bi taxaw nañ ko Ousmane Sonko c'est un signal fort boo xam ne jox nañ ko Ousmane Sonko jox nañ ko képp ko nga xamante ne am nga taxawaay pour peuple bi peuple bi dina la delloo taxawaay bi nga war a taxaw tey jii amul kenn ku ñu war a ragal amul kenn ku ñu mën a ragal amul benn puissance bu gën a fort puissance su bi peuple bi moo yor puissance moo koy exprimer te war a ne boppam tey ji loolu moom dina sës loolu dina dem et tey jii dinañ dem ba li nga xamante ne mooy libération complète du peuple am incha allah. léegi ñu gis ne Ousmane Sonko dañ ko placé est-ce que jàpp nga ne bi nga xamante ne na wala lu ñuy continuer di mëne la. non combat bi jeexul xam nga Sénégal dañoo nekk Sénégal yàlla daf ñoo may ñoom ay régulateurs sociaux. ñu jouer rôle boo xamante ne rôle bu am solo la ñun ñëpp xam nañ ne du Macky Sall moo décidé lii. xam nañ ne du Antoine Diome moo décidé lii ñun ñëpp xam nañ ne du procureur du justice moo décidé lii ñun ñëpp xam nañ ne waa Sénégal ñoo jog ne jàmm lañ bëgg te jàmm mu ngi jaar si libération Ousmane Sonko mais jàmm buñ ko bëggee complètement mu ngi jaar si libération bépp prisonnier politique mooy aussi si règle démocratique yi nga xamante ne mooy yor réew mi Macky Sall ko nangu ko mu xam ne moom 2024 moo ko si dese de monsieur le président Macky Sall 2024 lay jeex mu dem bàyyi ñoog suñu réew démocratiquement ñu choisir suñu président te tey jii Sénégal ne aujourd'hui lii leer ba leer mooy ne fii ak 2024 du ñu maintenir dañuy maintenir suñu pression ba fal Ousmane Sonko président de la République ba pare foofu nag commencé parce que le vrai combat mooy ñu bi. Sénégal ndóol gi Sénégal ñàkk ñàkk ñàkk sécurité bi jóge fi ba faw te loolu mënuñ ko am tant que système bi nga xamante ne moo fi nekk régime bi nga xam ne moo fi nekk nekk le même régime boo xamante ne même personne rek ñooy changé depuis 1960 régime boobu changé wul te loolu ñun ñoo koy xeex sénégalais yi xeex ko fu ñu ko war a xeexee dans toutes les instances et loolu mooy le vrai combat et le vrai combat continue. merci beaucoup Bara yéen a ko gisandoo noonu moom xamal nañu xalaatam en tant que homme membre permanent fii nga xamante ne moo di seen alliance bi nga xamante ne def nañ ko ak PASTEF muy MRDS ak PASTEF dinañ jëlaat ñeneen mais nañ jund tuuti ambiance bi buñ paree ci ambiance bi nag daal di jëlaat ki nga xamante ne ci coordination PASTEF yi la bokk mi ngi ni sama wet waaye ñu dund tuuti ambiance soog a soog a soog koo jël ma dalal ki nga xamante ne mooy Birama Diop bokk ci coordonnateur yi nga xamante ñooy doxal liggéey bi nga xamante ne moo am Pastef moom itam ñëw na fii pour ànd ak ki nga xamante ne moo di leader di le président Ousmane Sonko. bu ko defee Birama rek ñu laaj la tey jii naka nga gis lii nga xamante moo am fii buntu kër Ousmane waaw euh, ñu ngi leen di gërëm di leen sant di jaajëfal waa jot na News di leen massawu aussi ci li nga xamante ni moom moo leen daloon. di jaale waa Sénégal yëpp ñi nga xamante ni ñi ngi leen di ñi ngi faat seen i bakkan di wax ni Macky Sall le combat ne fait pour la démocratie di lancer un appel à tous mes corps à tous di leen wax ni nañu gën a mobiliser d'ailleurs tey à Djiddah Thiaroye Kaw à 17 dinañ fa am benn mobilisation bu exceptionnelle ñu ngi si woo waa Djiddah Thiaroye Kaw waa Guédiawaye waa waa Parcelles Assainies waa Yëmbal na ñëpp ñëw daje Djiddah Thiaroye Kaw buntu école 6 ñu def fa suñu mobilisation wane suñu ànd ak Ousmane Sonko wane suñu détermination ci suñu combat bi nga xamante ni moom lañ am pour la restauration de la démocratie donc maa ngi woow samay père coordonnateur ñoom ñëpp nañu def de même ñu xamante ni le combat ne fait que commencer vive la démocratie. ñoo ko déggandoo dégg ngeen li wax fi ne nii nag. en ce moment fii dafa fees dell comprendre ko noonu rek xam ne aussi liggéey bi mënut a yomb waaye jot na TV dina jéem a fexe lu mu man ngir jox leen les informations ak l' de l' affaire ak Ousmane Sonko kañ lay egsi ak bu egsee naka lay saaboonteeg ak new ñii nga xamante ne tey jii dañoo ñëw di témoigner ko li nga xamante mooy seen mbir lii daal mooy li nga xamante ne moo amoon fii ci président pause rek recharger waat tuuti batterie mën leen a dundal mën leen a wan wan leen li xew fii en exclusivité kon comme ni ngeen gisee mbooloo maa ngi nii fees dell di xaar ki nga xamante ne moo di président Ousmane Sonko ñun dañ leen di jox tuuti rek ngeen may ñu lu war a jege ci benn 15 à 20 minutes ñu recharger waat tuuti batterie en attendant ñuy xaar ki nga xam ne moo di président Ousmane Sonko mu egsi loolu daal faw ngeen bàyyi ko xel loolu mooy information yi nga xamante ne mën nañ leen koo jox loolu daal mooy li nga xamante ne moo fi amagum loolu mooy information yi